non risque moom man gëw ma loolu te tubaab la ngay wax sax risque day doon arrière ah day doon dadi te am na fooy toll ci làmb koy bëreel maanaam maye sens rek laa ko tuddee te boo demee ba yegg ci coppam ndaw la faaw nga gëstu ginnaaw loolu la mais du benn risque non du risque rek fi ma ne damaa bañ fàttalikuwuma fu ma ne dañ ma proposé Ama Baldé bañ. Mhm. fàttaliwu ko lool loolu. fàttali am na fu ñu toll ñu ngi wóor Ama Baldé. wóor hmm. moromu Ama ndax boo wóoree ni mu bëree. mais bu bëree Bombardier li ñu la bëri daal ndax ñëpp xam nañ ko ndax day laaj commencé wu ñu. te ñu bëri ñu nguur dañuy dem nguur ñu la raay aar mais dañoo bëgg lan moo tax ñu jël combat bi da ngaa téye bu dëgg taxaw si teew ko ndax gis nañ fan yii moom borom bi bu baax fa kàlla macha allah dafa teel gis nañ ko yaa ngi koy waxee bu baax mais ñu ngi ko mais lan moo tax nga jëm combat ndax fi nga toll wala teg ci roi des arènes tey jii nga raw ko fuuf buñ ko doon nga raw ko fuuf bi nga jël lan foo ko teg xaalis la wala da ngaa am fi nga doon boo tax mooy bi nee na bu ko àjj ni ko roi des arènes leeroon ba àjj na leeroon lool mu dee la. waaw lu mujjee wax ni ko àjj na am leer. ni ko àjj ni ko roi des arènes leeree tey jii bu ko àjj na am leeree woon lool mu dee nag amaat moo ko. mbër la rek bu yàlla tey léegi nag bu yàlla bàyyi ba ci kanam kanam ma ne ko waxu rek mbër taxaw na fi signature wax li nga xam ne buñ ne dañ ne bu dee arbitre siffle dina rey waa ji waxu mbër la rek loolu laa jàpp dégg naa ay sonn yu bari mais du ay xaalis moomu ci dugal wala déet non non lamb dafa nekk suñu nattu ñun suñu nattu la nekk ba tax na faaw ñuy bëree te comme defe naa wax naa ne ko suma suma suma début kàddu damaa wax chaque fois su ma yàlla dimbalee bu ma jël roi des arènes dama bëgg a wàccee ci booy du ma ne xale sax parce que maa ngi ñoom ay marché dama leen di ci làmb bu dee benn at wala ñaari at damay wàcc ci xale yi pour ubbi làmb ci parce que dafa doy rek Modou Balla Gaye ngay Lac de Guiers Eumeu Sène chaque fois loolu moo waral lii mais du dara du ne fu ñu ko teg nag fu ñu ko teg fu ñu ko teg fu dul ci liggéey rek ah xam liggéey sabablu ñaan yàlla may ñu ndam rek ah mais du feneen fu ñu koy teg ma la wax naa fenn fu mu koy teg bu dul lu ma liggéey ginnaaw yàlla di ma liggéey foofu laa ko teg may liggéey muy entraînement yi waaye